ba def benn euh, dernière manifestation ci année 2019 bi bon décroché ko en tant que artiste bon balaa may def dara damay gërëm commune de Diamaguène Sicap Mbao surtout à travers dans le département de Pikine bon di di di di gërëm remercier ñëpp tamit di remercier aussi euh, en commençant par euh, le premier magistrat de la commune de Diamaguène Sicap Mbao c'est qui la marraine d'honneur de l'événement mais madame Léna Diédhiou chargée de l'organisation de l'UCS au plan national me choisir choisie comme marraine d'honneur te ñu nekk fii ci këram ànd ak euh, doomam xaritam muy El Hadj Fadeba nga xamante ni yaakaar naa ni du ma taay di wax ci moom teraanga lay dëkkee moom chaque jour vraiment noonu la ñuy préparé événement 24 novembre bi ak album bu bees ci bu kenn yàqal kenn programme bi c'est le 24 novembre la waaw le 24 novembre la bon vraiment di ko def muy sargal euh, le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye muy monsieur moom mu doon koo xamante ni ku baax la nit ku baax la Euh, ma souhaité ñaari nit jël leen def leen parrain ak marraine muy le premier magistrat de la commune muy Coumba Ndoffène Fall def ko parrain d'honneur jël la marraine d'honneur de l'événement muy madame Léna Goudiaby Diédhiou muy chargé de l'organisation de l'UCED au plan national nekk ci Diamaguène Sicap Mbao doon une dame de fer une dame bi nga xamante ni vraiment nit ku baax la combattante la tey boolewul dara ki wax elle parle peu et pratique beaucoup ma choisir ko tey it euh, bi ma ko euh, xalaatee

vraiment di nit ku baax euh, di nit ku xam bopam euh, vraiment man pare nee ko journée mu def ci lu kon buñu soirée choisir tay événement bu doy ni bu am ampleur ni ci département bi surtout arrondissement bi ñu jël marraine bi jox ko Léna Dièye c'est parce que am na lu ne ci biir soo mi tuuti li ciy ñuul loolu nag mënuñu ko wax parce que moom leena après xam naa du ñàkk élage dina ci wax mais loolu moo tax tey li nga xamante ne événement bi ñu ngi koy préparé le 24 novembre ak album bu bees ñu ngi koy waaj. non secret bi waa Kër Cheikh Massar Sadouna. ndax nit ki du ragal féete ba pare man comprendre naa benn mbir ni da war a am seen da nga war a téye sa nit pas pour événement loolu dama koy wax sama nawle artiste yëpp nit waroo téye benn événement téye naa Fadiaba wala téye naa tey euh, maire wala téye naa honorable député wala téye naa benn homme d'affaires ku ci mel ni Fallou 3D téye naa tey ku ci mel ni tey Modou Thiaw sama xarit Cambérène 2 la nekk di ma defal lu ne tey téye naa ko téye naa Xaadim Jong wala Samba Dieng wala Mbaye Gass événement dama koy bàyyi non man su événement passé man damay téye avant ak après avant après c'est très important parce que nit bul téye nit ni tey rek yaa may déglu ma bon téye nga ko pour tey xam nga nit ki da nga koy téye téye koy pour événement pour toujours comprendre nga boo ko téyee pour toujours rek dalay dalay dalay dalay dalay dalay dalay dalay avancer parce que tey du ma ne def naa benn événement léegi nit ñi ñëw nañ samay parrains ñëw nañ samay marraines ñëw nañ mais le préfet du du du ndaw. am na lu mu gis si man ba tax mu validel ma sama sargal bi parce que wax na ko Théodore Semodo Walf wax na ko tey Abdou sama Diouf parce que jël na premier adjoint mu nga xamante ni moom mooy euh, Henri nga xamante ne moom moo visé tout ce qui bu dem ci ci ci territoire bi ci sponsor ci parrain ci marraine moo ko signé même moo ko validé parce que tey su fekkonte ni tey dama dama ko defoon parce que nee moom moom moom wax ci gémmiñ boppam ne ma li tax mu téye ko parce que li ma def parce que dama njëkk a jël benn événement sargal ci xalifa mu tàppaay mu def benn bëm benn buzz kon loolu moo tax nit da ngay téye sa nit pour toujours avant ak après man góob ma nit nga téye sa nit mu paase rek loolu mooy jikko yi euh, ndaw man góob ma si bu koy dundee mm-hmm. nit ki da nga war a téye sa nit pour toujours nit ki da nga war a téye sa nit pour toujours événement jeex na dama lay jàpp pour toujours ku ci mel ne Aïcha Djigo tey sama jigéen la tooloodo bi dama ko jàpp toujours parce que événement taxul ma jàpp ko euh, waa Dantale TV aussi préparé bi moom pare nañ mën nañu pare nañ sur tous les points sur tous les côtés parce que euh, Leena Diédhiou euh, mooy suma marraine Xariba euh, moom moo ko présidé suma papa Ndiogou Niang tamit daf ko présidé ma jël parrain d'honneur bi jox le premier magistrat de la commune te kenn mënu ko tëb mais événement bi day booy seet képp kuy autorité ci commune bi yaa ngi ci c'est nañ commandant gendarmerie zone France seeti le commissaire euh, seeti euh, sponsor, zone zone France bi yëpp euh, tamit les 5 maires de l'arrondissement. arrondissement moo seetal ñoom ñëpp ah, ba ci wa Ahmed Amar yeeg surtout nag ñi nga xamante ne samay nit dem parce que événement bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa ala daw mi parce que tay kiñ ci sargal du ko ndaw bu ñu ciy sargal naan tey le premier magistrat bi la sargal parce que bu ñu premier magistrat c'est le maire mais kan mo kilif kan mo ilif maire moy le préfet le sous préfet manam kilifam la papam la léppam la mu jox ko cër kon événement bi événement bu ndaw may waxal sénégalais yi ne leen warul yomb jàmm gën si dañu génn ñu mobiliser tay bu yakarna ni UCS tay ñi ngi door am bis ci commune bi UCS mosuñu am bis ci arrondissement Thiaroye ñu ngi fi door am bis parce que ñu ngi jël le chargé de l'organisation de l'UCS au plan national muy la marraine d'honneur de l'événement. muy madame Léna Goudiaby Dièye jox ko bis bi cërale ko te bu ñëwee dina xam ne cërale nañ ko ci bis bi nga xamante ni tey c'est bi nga xamante ni mooy marraine dina mooy ndayu bis bi. tey si fekk tey tey li ma ne Dentale TV tey ñëw bon vraiment ma jaar sa événement bi man dama ciy dem ba jeex mais man vraiment bu may def interview damay ñëw tey fekk la kër Léna. parce que tey vraiment tey kër marraine bi naa la fekk tey waxtaan ak man leen faja ba moo fi nekk parce que mooy lépp UCS ci jeunesse bi la mu ñëw def lépp nag vraiment jël jël tous ces mooy taxaw jàppale ma muy faja ba vraiment ci crédit comprendre nga ci déplacement essence vraiment mu def lépp kon seet xaarul ba Leena Dièye ñëw moom dafa jóg engagé wu ne man bu xaaruma Leena bërki démb dafa def benn acte bu rafet moom vraiment ñëw sama kër seetuma soxna ak suma famille soxna ñu créé benn association ñoom jigéen ñoo ko créé c'est pas jàpp pour mu leer ci bopp nit ñi parce que nit ñi dañ mën a yóbbu waxu nit sama jabar moo ko créé avec ay jigéenam ak seeni ñëpp mais maa ci ànd su ma ci ànd woon du ko def mu créé benn eh, eh, association bi tudd a ànd jàppale leen ADLD ànd jàppale leen a ji fajar ba dafa ñëw jël téléphone ne ma jaag ma ne ko am ah, na ma waxal sa soxna yi nañu mat tant de personnes dinaa ñëw jël moyen jàppale leen ñu liggéey man man ku bëgg leen rek bëgg naa la te loolu c'est pas quelque chose facile muy loo xamante ni dama koy waxaat parce que ci net laay waxee ci site laay waxee te fi may waxee bu subaa ñëpp dañ dégg samay wax international may dellusiwaat événement bi may wax ni vraiment maa ngi remercier suma partenaires yi nga xamante ne tey ñoo may jàppale ci événement bi ku ni tey euh, Fallou moom mouvement de soutien la yor muy 3D muy dëggu dekkal dëkk bi muy Fallou Gueye di suma rakk di borom diaspora bi moom ci suma partenaire la bokk may gërëm tamit le PPT muy P tous moom moom mi ngi fi pour les malades mentaux ak beneen mouvement bu tudd gunge jigéen ñi vraiment muy xaditaal di suma jigéen ak li nga xamante ne mooy mouvement sultaane lia muy sama sëriñ sama sang muy Cheikh Adramé bu Pikine Adramé Sadou Mbacké Euh, di gërëm tamit aussi waa ASC Samsam 3 ñoom tamit vraiment ñoom suñuy sponsor lañ muy président Seydou di Calki vraiment tey suba la ma woo yëkkati ndeysaan ne ma ko am ah, ko ma sa problème téléphone boobu lu tax dama ko fàtte woon vraiment maa ngi koy validé di wax ni vraiment def na rafet parce que yombul nga yëkkati alal di ko jox nit vraiment kon nguura événement baa ngi noonu émission fajar wala mais dama ci doon euh, wax noonu rek quoi moo tax maa ngi remercier C'est que émission les invité ma ma message